Euh, jërëjëf mbokk yi xarit téléspectateurs yi am nañ mbégte nag bu baax a baax dellusiwaat ci seen plateau bi ngeen taamul seen bopp gannaaw bi ñu leen nuyoo ku nekk turam ak santam di jégalu bu baax a baax ci ci ci tardement bi euh, di nuyu ku nekk turam ak santam di leen ñaanal jàmm sàkku ko ci yéen di nuyu kilifa diine kilifa day yàlla yàlla dëgëral taxawaay teewat suñu borom safaral ko di nuyu kilifay kër gi jiital ko di moom Alaaji Lamine Niass ak njabootam nuyu waa administration Walf FM Walf TV Walf Quotidien leen nuyu bu baax baax ñi nekk ci gox yi fasante ko ci biir réew mi fu ñu mënte nekk jàppaleen ñu ngi leen di ñaanal jàmm waaye sàkku nañ ko ci yéen am nañ mbégte nag fas de la semaine seen émission Sénégal di leen ci bégal waaye waxtaane loo xamante ne lu amu am solo la bokk na ci benn ponk moo di kenn ku nekk xam na ni nu ngi eh, nekk ci weeru koor waxtu wi eh, weer mu ngi xëcc jëm ci jeex ñu waxtaane dalal ci tey sama soppe sama xarit mu di Oustaz Assane nekk ci kër gi koo xam ne dootuñ ko présenté euh, Sénégal waaye dootuñ ko présenté àdduna euh, fas yéene waxtaanee benn ponk ba mu solo ci koor mu di euh, murum koor naka lañ koy génnee kan lañ ko war a jox kan moo war a laaj murum koor yooyu yëpp danañ ko yaatal bu bu soobee yàlla ci Walf TV ngeen mën ko teewlu gannaaw bi ñu leen nuyoo ku nekk turam santam ñu dalal Oustaz di ko wax salaamaaleykum sang bi. waaleykum salaam jërëjëf DJ Prince maa ngi lay nuyu waaye jaare ci yow nuyu ñi nga xam ne ñu ngi seetaanee ci biir réew réew bi nga xam ne weeru promotion la woon mu ngi waaj a jeex mm-hmm. waaye li ci des lu mu néew néew yàlla nañu yàlla dimbale ba ñu àggale ko liwéy itam yàlla na ko yàlla nangu fulandiku tasaare ko mu nekk yiw ñeel askan wi amin yaa rabbi ayca yow Oustaz tey nag ñu ngi eh, fas yéene gannaaw bi ñu la dalalee bu baax xam nañ ne jot bi sax mateewu ko ndax jamono ji xat nga lool waaye bàyyi nga lépp wax dëgg yàlla ñëw wuy su ñu ñu la ci gërëm di la ci sant eh, li may bëgg a dugg mooy eh, maanaam murum koor yow Oustaz murum koor kan lañ ko war a jox kan moo war a yelloo murum koor kan moo ko war a nangu waaye nag ak lan la ñuy joxe ci murum koor Euh, jërëjëf euh, Didier euh, sujet bi nga indi ñëw na ci waxtoom ndax murum koor dafay lu am solo ci liggéey bi ñuy def ci koor gi mm-hmm. mooy li nga xam ne mooy tëj koor gi ci ni ñu ko mën a waxee mm-hmm. maanaam sarax la soo xam ne boo demee ba woor ñaar fukki fan ak juróom-ñeent fan mm-hmm. fanweeri fan dañ lay wax nga génnee ko yow borom kër gi nga génneel ko ñi nga xam ne sa dundal leen yow la war ñooñu nag ka ci am téeméeri ak ka ci am benn fan bii door a sax mm-hmm. Mm-hmm. kooku war nañ ko génneel murum koor mm. màgget mi nga xam ne dem na ba woor waratu ko sax kooku mm. war nañ ko génneel murum koor dama bëgg wax ne ñëpp lañ ko war a génneel kon lu am solo la nit ñi xam loolu maanaam yow mi nga xam ne képp koo xam ne dundal la dalaa war danga nga war a génne murum koor mooy liir bi door a juddu tey mm. mooy màgget mi ne ci kër gi moo xam sa maam la wala sa wayjur nga mm. euh, nga ko war a génneel murum koor mm. waaye gannaaw loolu oustaz euh, euh, kan lañ war a jox murum koor ko waaw kan la ñu war a jox murum koor murum koor dañ koy jox alayhi wa sallam waxee mm-hmm. ndax bi muy wax njëriñu murum koor ak li tax ba ñu placé ko fi ñu ko placé ci catu koor gi mm-hmm. dafa bëgg mm-hmm. nit ñi mën a feetu ci jàmm dafa ne na noppal mhm. eh, woy ñàkk yi mhm. ñuy war ci mbedd yi di laaj kon jox leen leen murum koor mhm. kon ci ngay xamee ne murum koor dañ koy jox ki nga xam ne loxoom jotul ginnaawam ki nga xam ne amul lu muy dundee ren ba déwén kooku eh, mën nga ko jox murum koor kooku moo war a jox murum koor mais dañuy gis ne nit ñi dañuy toogandi di ko di ko laaj di ko di ko est-ce loolu wareef la foo ñu xam euh, question boobu am na solo ndax sénégalais léeg-léeg la ñu jaxase ay mbir. Mhm. dañu war xam ne muurum koor bokkul ak suukaru koor donte bu ci nekk koor la terminé. dëgg la waaw <laughs> suukaru koor moom. mën ko jox sa xarit mën nga ko jox koo xam ne moo la ëppale alal. ndax suñu aadala rek. Mhm, bu rafet boo xam ne. Mhm. bu la neexee nga jox ko ku la ëppal alal bu la neexee. nga jox ko ay pend jàllu ci technique beeg yu mel noonu loolu sukaru koor <laughs> la mais bu desulee dara lu dul muurum koor uh-huh. il faut nga jox ko ki yàlla wax léegi nag kooku bu yàlla bi lañ koy jox nga amul euh, lu muy mën a dundee ba nga xam ne bu jour ba du dem yalwaani ji waaye dafay consommer loolu nga xam ne jox nga ko uh-huh. kon ki ñu koy jox mooy ki nga xam ne loxoom jotul ginnaawam uh-huh, ki nga xam ne amul lu muy mën a dundee ren ba déwén uh, kooku moo war a laaj kooku kooku la ñu war a jox euh, murum koor waaye du du lu nit war a jóg di ko laaj euh, du lu nit war a jóg di ko laaj lislaam diglewul laaj waaye digle na saraxe mhm. waaw lislaam diglewul laaj mhm. waaye digle na saraxe ndax dimbalante dafa war a am ci biir askan wi na koo xam ne ba ñuy tànn métier yi mhm. dafa tànn métier am laaj laaj koo gis mu koy def rek ci li ëpp mooy ne daf cee tàbbi daf cee daanuwaay damu waxul woon di ca jëm kooku nag bu laajee ak bu laajul yëpp boo ko xamee da nga ko ko war a jox. Mhm. bu demee bay laaj itam. Mhm. xamal ne ñàkk pexe moo tax muy laaj waaye tànn ko ci biir métier yi mu mu war a am. Mhm. kon loolu lañu koy lañ koy lañ ko lañ ko war a defee. am na nag xam naa point point boobu di nga ci ñëw. ñuy laaj ndax mën nañ ko génne ci xaalis. wala ah, déet ak quantité bi ñaata la. yooyu yëpp itam. naa ci ñëw oustaz yéen tamit <clears throat> mën ngeen bokk ci waxtaan wi ci 88 628 99 99 114 mën ngeen ñu euh, balaa oustaz di dem ngeen lu ngeen ko bëgg a laaj ci euh, ponk boobu la ngeen laaj ko ko ci di jaajëfal ñuy déglu ci 93 damay dellusiwaat ba tey ci muurum koor balaa maa dikk ci ñaata nga war a génne euh, maanaam ki nga xamante ne ni day génne muurum koor bu koy génne dama faral dégg ñu ne sa loxo buy sa joor buy joxe sa càmmoñ du ko gis mm. wala loo war a fësal la boo koy joxee mm. wala waroo ko fësal Euh, murum koor daal li ñu la mm-hmm. sant mooy nga génne ko mm-hmm. génne boobu mm-hmm. bu mu ànd ak ngistal xam nga ñàkk ngistal ngistal ak gisal bokkul maanaam mën nga saraxe saraxe soo xam ne ñëpp ngi lay gis waaye fekk àndul ak ngistal dëgg la mën nga saraxe saraxe soo xam ne yaa ngi yaa ngi jublu pour nit ñi gisal boobu moom boo ko defee moom xamal ne li nga doon def yëpp amul amatul amatul njëriñ kon waxuñu la ne làqatul pour mm-hmm. joxe murum koor bi mm-hmm. moo xam nag gis nañu la wala gisuñu la na sell rek mm-hmm. euh, nga jox ko ki ko war a jox bu ko defee mu mu mu mën ko jëfandikoo te fekk yow itam nga am ci a bi daal moo ci am il faut mu am ci solo euh, da nga ko war a génne itam ndax boo am na noo xam ne boo ko génnee mm. sarax lañ koy tuddee kese kese mm. comme nan par exemple maanaam am na période boo xam ne bu passé nga ñëw ne maa ngi génne murum koor dañ la naan déedéet génne tu la murum koor mm-hmm. waaye yow yow da saraxe rek ban waxtu lañ ko war a murum koor passé na mm-hmm. comme ni julli amee waxtu wi nga xam ne fii la tàmbalee fii lay murum koor noonu la mel mm-hmm. murum koor saa yi ñu xesee wax ne weer wi feeñ na ba nga xam ne koor jeex na weer wi feeñ na rek mën nga fa ko fa génnee dama bëgg wax ne ci guddi ga mm. génne balaa ñuy dem julli ji ci ëllëg sa mhm. muy bésu korite gi balaa ñuy dem julli ji mhm. diggante boobu mhm. ci la ñuy génnee murum koor léegi nag boo ko génneewul ci jamono jooju ba ñu dem julli ba ñëw yonente bi nee na da nga saraxe rek waaye joxewuloo murum koor te ñàkk joxe murum koor am na danger bu rëy bu ci nekk boo xam ne boo bëggee moo wax la ko ci kanam waaw ay te loolu am na solo saa dama faral di dégg am na am na dama doon faral di dégg ñu ne mën nga ko génnee ñaari fan laata ñuy julli waaye mën nañu canaliser wu rek ci li nga xam ne moom la ñuy appliqué fii ci ngir imam malik mhm. waaye am na ñu ne sax bu weeru feeñee rek mhm. nangam mhm. waaye boo seetee alxikma nabawiya li nga xam ne moo tax murum koor jóg te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko da ngay jàpp ne bu ñu ne weer wi feeñ foofu la gën a porté mm-hmm. ndax li nga xam ne da nga a nit ki bañ na wér di yalwaani ji ci jour ta euh, gi mm-hmm. loolu boo ko joxee ci guddi ga mm-hmm. baax na boo xëyee teel ko koy jox balaa julli ji na kon foofu daal nañ ko tànn mu nekk période boo xam ne ci la ñu ñu ko gën a yaatal ba ñu ne fukki fan yi mujjee bu tàmbalee rek nangam wala ci biir koor gi rek nangam parce que ak aajo aajo yooyu yeneen détail la yoo xam ne Euh, am na considération mm-hmm. euh, mën nañu wax ne baaxul mm-hmm. waaye nañ mën nañ jàpp ci ne bu ñu weeru feeñ na daal mm-hmm. ba balaa ñuy julli jë loolu daal moo gën a fës euh, donc waaye kii boo koy génnee jamono jooju tam oustaz mën nga ko jox ka nga fekk muy yalwaan tam mën nga ko jox waaw ki nga fekk mu yalwaan te fekk amul moom mën nga ko jox ki nga xam ne itam am na koo xam ne itam yalwaanul xam nga ko mu ngi ci koñ bi mën nga ko koo jox mhm. euh, imam bu nekk ci jàkk ja mën nga ko koo jox ñu ñu bari boo demee ci yenn réew yi noonu la def mhm. azaka yi koy yóbbul jox ko imam yi imam yi ñoo gën a xam nit ñi ci société bi te nit bu ñuy laaj ñoom la ñu xam ñoom la ñuy laaj mhm. ñu distribuer leen ah mën nga ko yóbbu ci jàkk ji jox ko imam nga dem nga ne imam ah, murum koor a ngi seetal ñu ko mérité nga jox leen bu boobaa sax murum koor jaay dëgg la am na solo euh, Oustaz Assane jërëjëf mbokk xarit téléspectateurs a ngi euh, suivre moo di murum koor yéen tamit ngeen mën ngeen ci bokk euh, mën ñu woo ci 88 628 99 99 114 mu nekk en direct euh, ba tey ñu desandi ci oustaz Assane oustaz murum koor euh, nan la war a toll ci xaalis ak nan la war a toll ci ndax xaalis rek lañ ko war a génne wala ceeb wala dugub wala mboq wala lan ci lan lañ war a mun a génne murum koor ak naka lay toll voilà euh, muy laajaat bu am solo ndax euh, il faut booy génnee itam nga xam. li ngay génne ñaata ngay génne. Mhm. pour mu bañ a yees wala mu ëpp ba lor la. dëgg la euh, mantelaay boo xam ne moom lañ koy génnee. ci mhm. cosaan ci murum koor. Mhm. du ñu ko génnee ci xaalis ca cosaan ba daal. Mm. waaye bi xaalis demee ba xew. jàpp nañu ne comme que njariñ li ceeb am. moom la xaalis xaalis di am. ak leneen. te xaalis sax moo ko gën a yaatu njariñ. ñu dal di joindre ne kon. mën nañu ko génnee ci xaalis waaye ñu ñëw ci quantité bi ñu koy jé génnee. lan lañ koy génnee d'abord li ñu koy génnee mooy li ëpp ci li nit ki daan dundee ci biir koor gi hmm. li li ëpp ci li nga daan dundee ci biir koor gi am na ñoo xam ne hmm. ay macaroni am ñoo xam ne ay yàpp ñoo xam ne ceeb hmm. loolu nga ciy dundee danga nga ci indi da ngay natt ci loolu un kilo huit cent nga nga génnee ko ca loolu ñun ñu ëpp ci Sénégalais ñun ceeb lañ koy génne ci ka boo mënti nekk itam boo génnoon ci ceeb mën nga génn ci ceeb rek muy mm-hmm. un kilo huit cent par personne mm-hmm. léegi nag euh, boo ko arrondir nga def ko deux kilos ba tey mm-hmm. sarax dugal ci biir ba ci dara nga xam ne bopp bu nekk nga génneel ko ñaari kilo ñaari kilo ñaari kilo ba ñëpp jeex amul ne xale ndaw yëpp nga koy génneel kon quantité bi ñu koy génneel huit cent léegi ñaata la ci xaalis nag muy dépendre ci cherté de la vie bi ak euh, fi mu toll Euh, ak euh, euh, qualité ceeb bi nga bëgg a génne loolu ngay seet kilo bi ñaata la mhm. bu ko defee nga multiplier ko par nombre ñi nga war a mhm. génne nga jox leen ko boobaa itam mhm. comme li mu baaxee ci ceeb bi noonu lay baaxee ci xaalis bi am na solo oustaz ba tey ñu desandi ci waxtaan wi murum koor googu noonu ñuy wax noonu sénégalais yu bëree bëri li nga wax ni am na ñoo xam ne leeruloon ci seen bopp noonu kon daal liñ mën a jàpp ci waxtaan wi mooy que ni nit këram képp ku dund war ci yow rek da war a génnee murum koor soo koy génnee tamit quantité ba nga war a génnee mooy un kilo huit cent maanaam boo ko arrondiré muy deux kilos yàqu ci dara hmm. waaye nag boo génnee murum koor ba noppi euh, oustaz hmm. est-ce que nit ki tamit am na sañ-sañu dem xool nit rek dimbale ko te yàlla rek tax rek hmm. ndax xam ne ah kii kat loxoom joxul jotul ginnaam gannaaw jox na ko murum koor ba noppi xam nga suñu màggu Sénégal yi dañu xereñ ci waxin dañuy wax ñu waxee ko waxin woo xam ne da mm. ci da nga ko ñoom dañuy faral di wax ne buñ lay mm. jàngal azaka mm-hmm. dañ lay naan azaka duñu duñu ko jox sama mm. azaka duñu ko jox sama mm-hmm. ah xaaral ma jox azaka yi sama sama xarit bii mm-hmm. déedéet parce que bu boobaa xaritoo ga moo tax nga ko koy jox déedéet wala boog ah kee de waroon naa ko jox suukaru koor joxuma ko ba kii ma profito ma jox ko murum koor bu ko defee mu nekk li ma ko naroon dimbali déedéet yow da ngay seet Mm-hmm. kan lañ ko war a jox balaa nga koy yëkkati di ko joxe mm-hmm. kooku mooy kan mooy ki yàlla tëral ni kooku lañ ko war a jox mm-hmm. moo xam xamuloo ko euh, mooy ki nga xam ne ajo woon na ko soxla na ko amul lu ko mën a dundal ren ba déwén kooku nga ko war a jox waaye doo ko jox sama xarit sama ki nga xam ne moom laa faral di jox jox at mu jot ak yu mel noonu léeg du critères yooyu mais na ko jox ki ko mérité te mooy ki nga xam ne loxoom jotul ginnaawam te yaakaar naa sénégalais moom ñu ëpp ci ñoom ci situation boobu la daanaka koo njëkk a taseel rek. <laughs> mën nga ko woo nga ko man kon kon man sama kalaay bi nañ laaj murum ko. Ah, yow xam naa bokkoo ci parce que li nga sol nii rek xam na <laughs> ma seet yaakaar naa lii dañ ma ko abal. yaakaar na mën nga ci man nga ci génne lu mat mille murum koor de naa. saa lii dañ ma ko abal. pourtant pourtant loolu la ñuy wax parce que ah, dañu ne ci ah, l'islam même bu fekkente ne ñaari yére nga am. Mhm. Euh, pour génne murum koor te amuloo na nga jaay benn yére bi. pour nga génne pour wan la rek. Mhm. importance murum koor parce que dañu ne murum koor. Mhm. boo ko génnewul te tey ko. sa koor gi dafay dem ba asamaan mu aju fa du mën a jàll. léegi bu jàllool nag bu demee ba mu àgg fenn fi ba yëf yi paase. wàccaat nekk balaa ci ci biir askan wi. mën na jóge fii daanu ci géej gi mën na jóge fii daanu mooy crise yi ngay gis rek ñu ne suuf yëngatu na fii dara xew na fii oto këpp na fii ku mel noonu euh, ñàkk génnee murum koor yi bokk na ci li koy waral day mujjee nekk musiba ak balaa mel ne xeer buy wàccaat ci suuf daanuwaat xamoo nag fan lay daan mën na daan ci étage mën na daan ci fu mën mën ci doon kon murum koor doole yegg na foofu noonu yegg na yegg na yegg yegg na foofu dañ koy aj ci weeru koor dañ koy aj diggante asamaan ak suuf mhm. mu nekk fa di xaar bu ñu ko yàlla nangu ko mhm. bu ñu ko puusul ak muurum koor nag bu yàggee mu wàcc daanu mel ne avion bu daanu ci xamuloo fan lay daan kon daal maanaam ci gàttal wareef la ci doomu aadama bi rawatina jullit bi nga xam ne du mooy sax wareef la ci jullit bi wooru weeru koor ba mu jeex mu génnee muurum koor génne ko nii nga ko waxee mooy charte yi nga xam ne moom la ko lislaam tërale am na ñoo xam ne dangay gis ñuy tànn mhm. euh, génnee ko ñi nga xam ne ñu ngi doon woor déedéet yàlla du kenn euh, noonu mhm. atu woor ci mm-hmm. famille mm-hmm. ak ki nga xam ne waru génnee leen mënu ko yëpp benn la mm-hmm. waaw am na ñoo xam dañuy tànn ñi nga xam ne waroon na ñu ñu génneel ñi ñu bàyyi ñu la génneel ñëpp nga war a génneel ku war a ku wóoru yëpp da nga war a génneel nit mën na yaakaar ne aw ma nag te fekk am am mënoo wax ne am amoo murum koor ba pare ci mm-hmm. lislaam mm-hmm. mënoo wax ne amoo murum koor yaa ngi am ñaari portable mm-hmm. benn bi cent cinquante mille benn bi quatre cent mille wala ak lale lale mën nga mën nga dem ci bitig bi mu jox la nga kii parce que yow am nga loo xam ne da nga ko retiré a mu ngi fi yooyu yëpp waaw nit mën na yaakaar ne daal aw ma te xam sax dañ koy sàgganee ba julli ji ba noppi kon bu boobaa tamit sarax rek lay doon waaw ëpp na sàggane nag na ba boo xëyee suba mm-hmm. teel rek nga dal di ko joxe mm-hmm. wala ci guddi gi doo ñàkk wala ci mm-hmm. guddi gi sax parce que même bu fekkee ne yoroo oto boo doxee sax wallaay dem ci jàkka yi wala ci jàkka sax wala jumaa yi li nga wax ni am sol dem ci imaam ne ko ah lii de muurum koor la seetal ñi ko yellool ta nga xam leen nga tegal ma ko seen loxo boo bëggee bañee sonn daal demal ci imaam nga buub sa muurum koor yëpp ne ko yëf kon daal loolu lañ mën a tënk ci mbir wa oustaz du la téye lu yàgg ndax wax dëgg yàlla xam naa ni euh, gërëm naa la sant naa la lan ngay ñaax askan wi lan nga leen di wax tey ndax li may wax rek samay plateau dama la ci bëgg di gis ndaxte wax dëgg yàlla tamit dangay wax euh, nit ñi loo xam ne bu ñu ko déggee dinañ ci jalee njariñ lan nga leen di ñaax ci koor gi ñu jógee ndax na gis nañ ne tamit xam nga damay faral di wax ne oustaz woor weeru koor ak nu mu méttee ba mu jeex benn bés nga daal di ko saay maanaam woor ba mu ne ba ca ngoon nga nga dem ne da baali wala di organiser ay sabar wala di yooyu tam nga tënkal ma ko rek Euh, koor dafa am lu mu war a génnee ci nit ki am lu mu war a dugal mhm. voilà yàlla na fekk nag mu génne li mu war a dugal li ma bëgg a wax mooy mhm. nit ki nga xam ne woor na ba weer wi jeex xam nga mhm. bu fekkonte ne euh, quatre-vingt-dix kilos la da ngay fekk xëy na ñu la wàññeeku nga ba wàññeeku nga juróomi kilo xam nga loolu ci sa yaram la ni mu wàññee noonu ci sa yaram nag noonu la war a wàññee ci sa jikko sa jikko nay waratu cee bokk mhm. añaan waratu cee bokk mhm. euh, loraange loraate waratu mhm. waratu cee bokk parce que koor benn estage la boo xam ne boo ca génnee war nga xam nooy jëflanteeg sa sa sa moroom parce que xam nga xiif bi dañ koy partage comme ni ñu partagé yi ci ci whatsapp noonu la ñuy partagé loolu la yàlla partagé xiif xam nga dëgg la ki gën a ki ki ki ëpp xaalis day xiif comme ni ki gën a ñàkk xaalis di xiifee ci période koor gi kon loolu ban leçon lay joxe mooy ne. Mhm. bu ñu demee ba koor gi jee. Mhm. ki nga xam ne mënul jeexal li mu am. mu mhm. fàttaliku ne ah xiif bi ma daan xiif kan nekkee xiif noonu la mel. te ñii toujours ñu ngi cay continuer. kon bu ñuy wax ne dimbali ma dama xiif mun a comprendre ñeneen lan la ñuy wax. dëgg la voilà. te boo seetee ci beneen aspect bu gën a yaatu. mooy ne seetal koor fi ko yàlla placé ci année bi. xam nga bu ñu nee Ramadan. mooy koor. Shaaban nga ciy teg. Shawwal. Zul Qicda. ñeenti weer. Mhm. ñeenti weer mhm. rek nga commencé commencé commencé kii te sax boo seetee nga commencé dem ci pèlerinage. Mhm. boo seetee sax euh, shawal bu ñëwee rek weeru aji ubbeeku la. mu mel ne kon weeru koor dafa ñëwoon pour defal jullit ñi ci biir àdduna bi stage boo xam ne dinañu apt dajaloo ndajow international boobu nga xam ne dañ dañ fay dajaloo mu jiital koor nag ñu entraîné wu pour war a dem aji ji fanweeri fan yoo xam ne danga nga doon xiif. dëgg la di dimbale sa mbokk. Mm-hmm. di di am looy lekk waaye doo ko lekk. Mm-hmm. Euh, yàlla ngay joxe. Mm-hmm. voilà léegi nag jikko yu tàggatu. ñun door leen ñëw leen nag ci congrès international muy pèlerinage bi. loolu mooy xekma ba. ci ci wàllu woowu kon yooyu nag la koor war a bàyyi ci ñun. yi mu war a génne ci ñun itam mooy yooyu mooy yi nga xam ne. Euh, ak euh, ak parce que bo pour nga xam ne sa koor gi nangu na wala nanguwul. seetal ni nga mel ginnaaw koor bu fekkente ne am na as néew benn jikko rek bu fekkente ni changé na ko ci yow doy na baax na mhm. bu ba déwén nga yokkaat beneen waaye bu fekkente ne daal comme bi nga meloon <laughs> dara am na tukulóor yoo xam ne bu bu bu bu fukki fan ñëwee ñu ne ah yëf yi daal daanaka kii ñu commencé aj aj bagage yi muy mm. euh, sijaade kursi yi ñu ne daal yëf yi jeex na ba déwén rek bilaay Sénégal daf fee bari te fekk jaamu yàlla dafa war parce que loolu dañ koy gisee soo gisee man sax li may wax mu sax mooy que ni boo gisee fukki fan yi mujj yàlla dëxëñ ci guddig laylatul xadar maanaam fa nit ñi demee bay xaddi mu mel ni borom bi daf na leen jox naa leen benn récompense maanaam jox naa leen benn sërite boo xamante ne bu ko defee nit gën a farluwaat ca lam doon def ca koor ga mhm. ngir bañ a tayal exactement loolu la mhm. xam nga laylatul xadar boobu nga wax xam mhm. nga promotion léeg <laughs> nga ne xaaral ma ba fajar. daf yàlla daf ko prononcé sax du minuit mais ba fajar. ba fajar dëgg la ak la fajri la bi ñaata pour cent la. yàlla waxul sax ñaata la. xayrun min alfi shahrin xam nga boone nee. raakool bi moo gën a gudd big bi. raakool bi moo gën a gudd big bi. ñaata la ko gënee gudd. xamuloo ko dëgg la. mais yàlla dafa ne benn guddi laylatul xadar boobu moo gën junniy weer. bu fekkoon ne dafay naan toll. te jar na góorgóorlu mm-hmm. mais nee na moo ko gën mm-hmm. ñaata la ko gënee bu fa yàlla xam nga kilomètre yi xamuloo ñaata la kon mu jar a góorgóorlu mooy mm-hmm. laylatul xadr boobu am na solo Oustaz du ma lu yàgg lool dama lay bàyyi nga nuyoo euh, nga tàggatoog askan wi euh, ñaax leen ak lan nga leen di wax rek di la gërëm nag bu baax ci disponibilité bi mbax man wax dëgg yàlla sonal naa la lool heure bu rek da bàyyi sa yitte ñëw waaye nag yow suma kilifa nga euh, nekk nga nit ku baax aussi la may wax rek maanaam royukaay nga ci ci diine ji royukaay nga ci kër gi royukaay nga ci àdduna lan ngay wax baax mbokk rek profito profito ci sa plateau bi sant ñi nga xam ne koor gi yëpp ñu branché wu woon ci hmm. Walfajri bi di topp programme am hmm. ci tafsiru quran ci oustaz Hadi ak eh, bu Mouhamadou Rasulullah bu Sidi ak hmm. yeneen yu sew sewaan yi nga xam ne bokk na ca ndax eh, xam nga ne ci biir koor gi yëpp yi dañ ko solal yërey koor dëppoo nit ñi utile ak agréable loolu ñu eh, bare di woote di ko rafetlu ñi ci biir réew mi ak ci bitim réew bu ko defee ñu xam ne rek loolu loolu lañu maanaam nit ñi mm-hmm. gis ci seen bopp.